sin la ci kaw garab sa rafetaay tax ma lay xool ma di la xool te gisuma lu ko gën a neex man yaa ma dàqal wurus ak te fu ma tollu damay ñaan li may dund nii mu doon gént bu dul jël naa sama xol ba teg ko ci balance te lu mu tuuti tuuti def nga ko sa chance nga koy xool di gis benn apparence di tëf tëf fi pour yow di yokk ka bëggeel saa su waane boppam wane mu mënee du ci ni ak sama choco banne jox naa sama xol choco banne ma di la xool te gisuma lu ko gën a neex tamit bàyyi li ngeen def kii andi nañ ko fi pour mu liggéey donc dimbali leen ko papa moo ko indi fii teg ko si bureau bi pour mu remplacer ko bu nekkee ko jëlee daf ko remplacer donc am na lu mu yaakaar si moom ñun li ñu li ñu intéressé mooy li nga xamante ni moom lay àndaale compétence am xam-xamam parce que entreprise bi nekk na entreprise bi nga xamante ni waratul wàcc parce que dafa am benn niveau bi nga xamante ni foofu la egg déjà donc bu nekkee andi na doom pour mu remplacer ko donc nañ ko jàppale. quant à ay dafa jàngoon à dafa jàngoon Côte d'Ivoire Cameroun loolu c'est pas important ce qui mooy compétence am bi xamante ni moom la donc yi ngay wax nii ay futilité rek la amul benn sens vraiment. vraiment du. parce que ah, loolu nga wax yëpp c'est pas important ce important mooy compétence bi nga xamante ni moom la xale bu jigéen bi àndaale papaam teg na ko fii. mais mais as. mais Astou soyez soyez positif nañ ko dalal jàmm moom jëm kaa dimbali bu topp Amel Amel moom gis nga ni mu mel xas na ko ba mel déjà moom xam nga dafa bëgg xale yu jigéen yi déjà gis naa ko mu ànd ak euh, Bella ànd ak ki benn xaritam mu commencé di am comportement bu xamante ni kenn comprendre l' mm. essentiel daal moo nañ ko dimbali jéem ko accompagner vraiment ñu ànd liggéey vraiment man daal su ma sañoon daal en tant que collègue. ñu continuer ànd ak moom jàppale ko ñu liggéey vraiment. merci beaucoup salaam ne compte même pas sur moi en tout cas daal dinaa xëy wàcc li ma waroon du ma wàcc dinaa ko continuer mais pour jéem a am benn relation de courtoisie ak moom je vais le faire. laaj na li est-ce qu'on a kaw garab sa rafetaay tax ma lay xool ma di la xool te gisuma lu ko gën a neex ma dàqal wurus ak ngalam te fu ma toog Allô Oui, ça va hmm, C'est bien Bella, j'espère. ok euh, man la Nana waa dañ ma boole woon ak yow euh, te ki ma boole woon ak ku ma boole ak yow xam na la bu baax mu ne ma da nga soxla woon secrétaire. Mhm. waa euh, léegi man. dama la bëgg a wax ni am na CV bi nga soxla xam naa lii du waxu téléphone mais su fekkee ne si c'est bien possible euh, nga fixer rendez-vous pour man comme ça ma ñëw euh, ñu gën a waxtaan ci loolu si possible bien sûr d'accord y a ok d'accord Ok, Bella, merci beaucoup. Allez, au revoir. À 16h, d'accord. D'accord, il a pas de souci. Ok, merci. Allez, au revoir. Bonsoir. Coucou mon chéri. Alors, comment ah, tu vas Ça va, je vais bien bah, et toi Oui, ça va. Euh. wàcc nga. Ah, trop trop xam nga dëkk bi dafa métti. ah dëkk bi dafa métti. métti na moom. trop sax. mais ça va aller. et la journée ça a été. oui ça a été ça a été. alhamdulilah si kawam hmm. Hmm. nouvelle pour toi. Ah bon quelle est cette Mm. non je te laisse pas <laughs> bàyyi la ma wax. j'ai appelé Bella. ah bon. depuis mm-hmm. quand. Mm, ah. tout à l'heure. Mm. alors. nu ko demee c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, on a fixé une rendez-vous man damay dem bureau. demain 16h inch'Allah. demain 16h waaw waaw. ah c'est bien c'est yow moom l'essentiel mooy yow xam naa te xam naa ne soo duggee foofu liggéey bi dina rafet dina jaar yoon. mën ngay waxal de mën ngay waxal Tafa man xam nga ne fu ma jaar dara du fa tilim day weex tàll. gëm naa loolu. waaye nag am na lu des. Hmm, lan moo des. dina hmm, récompense. <laughs> yow dama jaaxal. jaaxal nga yow. ah dañ ko féete. waaw loolu moom saa su fekk. déjà ba ngay ñëwee da man. waaw waaw mais xamoo xamoo ne nouvelle bi laa fi fekk. ci hmm? hmm. <laughs> man trop nag. tu sais baax a baax su ma teeni ba seen la ci kaw garab. sa rafetaay tax ma lay xool. ma di la xool te gisuma lu ko gën a neex. man ma dàqal wurus ak ngalam. te fu ma tollu damay ñaan. li may dund mu doon gént bu dul jël naa sama xol ba teg ko ci balance te lu mu tuut. jaabo. waaw sama doom. yaa toog. waaw maa ngi toog. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. ndax yaram bi nag. waaw maa ngi nii rek maa ngi sant. kanam bu baax. waaw maa ngi fee bu baax a baax. alhamdulilah. foo demoon. man damaa demoon armée rek doxoon foofu. Ah. Mhm. loolu de lu baax la. ma demoon ñaanal paa bi. loolu de moom lu baax a baax la. Mhm. waaw lu baax la de. gis nga de. waaw lu baax nga def. mbaa maa ngi si jàmm. Hmm. kër gi ñëw na mooy bi nga feebaree. waaw ñëw na hmm. la doon hmm. nga six mois mu ngi nii ngi jéem a de doy na waar. mooy baax na. yàlla baax na yàlla baax na xam naa ne moom bu fi ñëwaatee. xam nga kooku dafa bari wax. bu fi ñëwaatee. gëm naa ne dañuy génne mais yàlla baax na avant boobu peut-être yàlla dina dinañu suturaal incha allah. ah loolu doy na waar de sama doom. billaay yaay. doy yàlla baax na loolu moom bu si am benn problème. yàlla ah. baax na. Hmm. Hmm. waaw yaay. man dama bëggoon ñu waxtaan tuuti. Hmm. dama bëggoon ñu waxtaan si sama papa. war sama papa. waxal ma dégg. yaay man bi mu juddoo ba léegi bu ma lay wax sama waxu papa doo ma si wax dara lu leer te man léegi mag laa de nekkatuma xale. sa papa daf dëgg yàlla ku baax la ku baax la dëgg yàlla maam moom yow nekkoon ba yàlla jëlee ko fi. def sëy naa fa sëy bu rafet macha allah yow ñaanal la sa papa rek ñaanal ko rek yàlla baax na ñaanal ko rek. waaw yaay man li ma jaaxal. man bu ma demee arrière man du ma gis sëgam. dëgg yàlla man dañ ne ma foofu rek lañ ko denc loolu rek lañ ma wax foofu rek lañ ko denc mais ñaanal ko rek yow dee dem rek di ko ñaanal. baax na man moom amul problème man loo wax rek baax na parce que man yow laa am. yàlla man aw ma kenn ku dul yow. yow yàlla baax na sama doom dina baax de incha allah ñun rek dina baax lu metti yàggul nañ ñun rek la baax na. la bëggoon a laaj man bi ma feebaree noo dem ba fay hôpital ba. Hmm. yaay. man xam man moom duma la fen ah. wax dëgg yàlla hmm. man bi ma génnee si biti. la benn ndaw bu jigéen fekk ma foofu si biti moom de moo ma jox lu ma fayee si fere hôpital mbaa wóor na ah yaay kooku ku baax la may nduru de ah jamono bi daa tas de ku baax la may nduru wax dëgg yàlla dëgg yàlla mbaa wóor na sama doom xam nga ko xaw ma ko de xaw ma ko de ah loolu doy na waat de mais yàlla baax na comme dañu danaa daje moom da nga ma def lu baax. wax dëgg yàlla ah ko yàlla fay. amiin yaa rabbi yal yàlla defal jàmm. maa jël nga numéro. waaw moom jëloon na sama numéro de. Ah. Mhm. ah. waaw yàlla baax na di leen déggante rek. incha allah yàlla baax na. incha allah jërëjëf Faye sama doom. waaw baax na man maa ngi àgg si biir. jërëjëf waaw. jërëjëf maa ngi fii toog. teeni ba seen ci kaw garab sa tax ma lay xool ma di la te gisuma lu ko gën a neex man yaa ma dàqal wurus ak ngalam te fu ma tollu damay ñaan li may dund mu doon gént bu dul jël naa sama xol ba teg ko ci balance te lu mu tuut bonsoir Astou Allô, bonsoir. Comment on va Ça va, je Et le boulot Ça va, on gère, comme d'habitude. Il est où, Ahmed Ne me parle pas de cet responsable, je ne l'ai même pas vu. Il est toujours dans ses heures. Ahmed, il ne travaille je pas. Je bien dit que la réunion serait à 18h. Vraiment Je ne sais pas où il est. Bonsoir. Mmh, bonsoir. ça va. ça va bien directrice bi laa soxla woon. directrice. Mhm. bon directrice nag dafa bougé quoi nekk fi mais je pense que yaa Fallou mi ngi fi quoi mais dafa nekk en réunion toogal tuuti moo waral ko après. mais yow ci Sénégal fii yaa ngi Sénégal yow. doo kam muy dem ñu faatu faatu quoi jaabante woo Europe yow côté Canada Norvège yooyu noonu sa temps bi jafe na ci temps bi de. Eh, hmm? sa wax ci dafa bari mën nga dem ne ko man maa ngi koy xaar yow ni nga neexee nii nan la waroon neexee deret ku la xool xam ni da neex neexal deret yow tamit ñu waxtaan balaa ngaa dem wóor la saa waay man maay golden boy entreprise bi. Mak TV man maay naafa wii ma dañuy link xam nga àll dafa indi ci cherche bi bu loolu noonu mu koy négocier gars yi da ngay wala eh wii ma loolu benn link ak man ak yow rek kon gérer loolu. dafa fànn koñe li ngay daawu ma lay xool da nga dégg. mais kontaan naa franchement man su ma gisee lu baax sama xol bi day sedd fi mu nekk nii sama xol baa ni Méditerranée. eh da nga koy gérer. gis dinaa ko def sans wax mais yow dama ñàkk bañ wax ak yow xale yu mel ni dañoo jëf mu taw kon tey ku la nax ay. Vous savez, euh, on a une nouvelle directrice Beda papaam jóge na fii jox na ko entreprise bi vraiment pour mu ñëw. Euh, bonsoir bonsoir. alors. on dit quoi. désolé hein pour le retard. Ahmed. ouais. mais Ahmed Ahmed, on est là pour travailler, on n'est pas là pour jouer quand même. D'accord. il faut que vous vous concentrez. C'est pas important. Après, on va, on va en reparler. Bien sûr que c'est important. L'essentiel est que de euh, vous dire il fait un détail. Ahmed, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez sérieux, s'il vous plaît. C'est pas le moment. li ñu andi fii mooy euh, directrice bu bees bi nga xamante ni moom mooy nekk sa entreprise bi mu di Pella papaam jox na ko entreprise bi moom jamono ji moom mooy diriger certes bu fi nekkul ma lay délégué mais ñun ñëpp mooy suñu njiit mais bu nekkee mooy jiit donc on doit le respecter lui donner le minimum di dox si ay conditions di dox si ay waaw parce que entreprise bi comme je vous l'ai nekkul entreprise bu ndaw entreprise la boo xamante ni daanaka on la connaît partout on la connaît du moins partout dans le monde donc. Euh, on doit mettre beaucoup de rigueur maintenant pas bi dem na cela ne veut pas dire que ni dañuy nekk di fo je vous la fois passée excusez-moi il faut les mettre en silence quand même. D'accord, je on est en réunion il faut les mettre en silence. def naa li ko ker pas bi jóge na fii cela ne veut pas dire que ni dañuy nekk di fo dañu liggéey amet gis naa la. la fois passée gis naa euh, kii di bi di ñëw parce que désormais elle e directrice on va l'appeler directrice Bila gis naa ko mu ñëw gis naa sa comportement loolu c'est pas un comportement qui est exemplaire euh, Assou je vous ai toi aussi jigéen nga jigéen la mais nag moom moo la jiitu donc il y a des choses yu nga xamante ni jaruñu ko fiy jaay l'essentiel mooy que ni moom li muy àndaale je vous l'ai dit la fois la fois li muy àndaale lan la mooy compétence nañ ko fekk si loolu dimbali ko parce que nag bu leen fàtte ni moom moo ñu dirigeant te bu ko neexoon ñun ñi ñëpp tey kenn fi toog. excuse-moi Fallou nous diriger ça veut pas dire qu'elle est meilleure que nous. laissez-moi terminer ko neexoon tey ñëpp dañu fi toogam ah mënoon nañu dàq mënoon na bu ko neexoon mu dem andi ay xaritam andi ay raqam andi ay magam. mais dafa loolu ñëw na accompagne ñu ba pare nag jox ñu confiance donc l'essentiel mooy nañ ko dimbali man noonu laay gisee taman man tamit loolu laa leen proposé parce que maa leen jiitu si entreprise bi xam naa entreprise nu muy doxee nekkul papa nekkul yaay mais la compétence c'est ça l'essentiel si vous avez des quelque chose à dire je vous écoute man de fi nga daanelee rek laay commencer comme vous l'avez si bien dit la compétence et elle n'est pas si compétente que nous aussi vous comprenez vous avez dit tantôt aussi que moom dañ ko war a respecter lu mu wax ñu ne waaw lu mu non non c'est une entreprise yaa ngi dégg c'est pas que moom dafa nekk chef de famille ou quelque chose comme ça ñun dañoo war a soppante ay xalaat di wax di échanger mais pas moom lu mu wax rek loolu la war a def. entreprise la moom am na ci domaine yi nga xamante ne loolu la duwee ñun aussi même chose donc c'est pas que lu mu wax rek loolu lañu war a def dañoo war a partager di wax moom muy wax ñuy wax mais moom kese dafa mën a tenir réeram d'accord c'est le chef ok on comprend mais c'est pas que c'est lui qui doit tout le temps dire ce qu'on doit faire quand même. je vous comprends. bon pour moi je ne pas dire de gros mots juste lu mu bëgg mooy que nan la ko entreprise bi nag nu muy doxee que nee nga yow yaa topp si nga xool café gi bu mu manqué su ma xëy damay laal ñaari kaasu dose balaa ma toog man. est-ce que tu t'entends parler. est-ce qu'on parle de professionnalisme et toi tu fais que raconter des baratinages c'est quoi ton problème. non Astou calmez-vous s'il vous plaît. non non mais il a raison. non mais ce gars-là il m'énerve instant bi dañoo nekk si réunion bu sérieux non yow xam nga ma man. est ce que tu dis là c'est pas sérieux. Ahmed li may wax nii sérieux. Ahmed non kii dafa soppal ñu mel ni Césaria Ebora bi. non j'ai pas besoin de ça ici. non mais quand même dama bàyyi ma wax. pas besoin de ça ici. damay moom ma joxe samay points yi muy souligner. je t'écoute. yow yaa topp ci ginnaaw. donc ñun tamit sa ginnaaw lañ topp yow lii man yóbbante la bu la neexee nga yéegee ko ko entreprise bi gi rythme bi mu nekkoon bu ko wàccee damay démissionné de te man maay golden boy bi su may démissionné Mak TV di daanu yow lu ci li may ci woon na leer. ok c'est bon. beneen bi man aw ma lu may rëbb. il n'est jigéen la moo man aw ma lu ma ciy duute xale bi rafet na jekk na mën na liggéey toog sama kanam may gis dafa may neex waaye café gi daal saa fa mu nekkoon na fa nekk toujours. buy wàcc may bàyyi. leer l'essentiel mooy na liggéey moom baax na l'essentiel mooy na liggéey maintenant dégg naa leen yéen ñëpp li ngeen wax. donc on se donne rendez-vous la prochaine li nga bëgg directrice bi ñooy naa ko indi asu toi aussi il faut que ngeen def tuuti effort pour ñu mën a doxal entreprise bi quand ok on se donne rendez mais toi ba amay demande am na ku doon xaar si biti benn kuuru ay ni quoi ah bon kuuru ay ni ngi toog ko ok elle peut venir yow mën a Ça va, monsieur Ça va, madame. Vous allez bien Ça va, je suis parmi madame. En fait, directrice de la recette, Bella. Bella. Oui. Elle est en voyage. Ah, ok, d'accord. Loolu la a koy wax. Mm, ça va. mën na Nana. Nana, oui, euh, Nana. Mm-hmm. waxoon na ma ko. Ça va Ça va Nana. Ça va bien. Comment je vais très bien, alhamdulillah. Et les activités Ça va, ça marche. Inch'Allah. Mm-hmm. Elle m'avait parlé. Elle m'avait parlé de toi. Ouais, ouais. Euh, c'est ça le CV. Hein. Ah, mais sinon, ça va quand même Oui, ça va, je vais bien. Ah, super. C'est très bien rédigé ça. Je sais. Et tu rédiges toi-même Beaucoup toi-même. Vous venez d'où À l'extérieur. À l'extérieur, évidemment. En tout cas, c'est très bien religieux et c'est très, très, riche. Merci. Euh, vraiment, c'est convaincant quand même. La directrice n'est pas là, mais à son arrivée, vraiment, je vais lui en parler. j'espère très bien pouvoir travailler avec vous parce que ce CV-là, dal na xel vraiment. mooy am allah c'est très bien réalisé. donc je vais le garder ici en tout cas bu ñëwee dinaa ko jox. Euh, d'accord y a y a pas de souci donc on se donne rendez-vous à la prochaine. inchallah parce que sûrement tu viendras encore une fois pour travailler sur moi. d'accord ok merci beaucoup. ok merci Nana. alors mais kii CVM bi riche na trop non c'est mënul liggéey mënul jàngee fii am c'est tellement bien rédigé tellement convaincant pas de faute ni de rature vraiment CV bi waxuma a Mak TV mais entreprise boo ko mënti dugal dañ koy embaucher en tout cas foog naa ne dañ am benn employé bu bees c'est très bien rédigé yaakaar naa ni tollu nga fu ko raw ay sama jàmbaar jolli suñu diggante ay wax bi ci bëri mandat bi benn la dootuñu dolli ban ba noppi te kenn du la folli sama jongo may sa alaaji xas naa la jàpp dootuma la bàyyi defal lu la saf mooy ma gaay yi li tëri dund may dindi sànni